salaamaaleykum. maaleykum salaam. Euh, sëñ bi tur bi man Dame Niang laa tudd. waaw Dame Niang fan yi gis nañ coronavirus bi amoon na jéeg bu am solo bi Sénégal defoon demoon nañ sax faj kenn ba mu jéem a antu ñu faj ko mais ñu gis euh, démb Touba benn moon moor bu jugoon Italie indoon na doomu jàngoro bi ba tey ñuy yëgli xibaar yi jabaram aussi am na coronavirus bi est que tey loolu du créer benn jaaxar jaaxle ci askanu Sénégal. waa bien sûr que dina créer njaaxare. parce que euh, c'est semaine passé rek ñu bëri demoon na sa jàpp ne coronavirus du daal ku ñuul waxuma laa sénégalais parce que am na ay ñaan yoo xam ne euh, partagé woon nañ ko si net bi am ay kàddu yu jógee ci ay kilifa yoo xam ne suñ ko jëfandikoo lu mel ne balaa bu mel noonu mun na bañ a egsi si ñun mais depuis démb xam nañ ne euh, yokk yokk fagaru redouble de vigilance yokk fagaru jéem a fi nga xam ne mbooloo dañ fay daje yu mel ne événement religieux yi ñu fexe ba ba ba nuñ ko suspendre ba feebar bu wàññeeku defe naa dina nekk lu gën parce que temps yooyu nekkoon na d'actualité ba ko génne woon sax ñu bëri dal nañ si kawam mais gis nañ ne actuellement li mu doon arrêté euh, li mu doon alerte c'est avéré mooy na maanaam li mu doon bañ mu ñëw ñëw na maanaam nit jógee bitim réew ñëw de Porokhane indi fa virus bi léegi na actuellement am na moom testé nañ ko positif jabar ji testé nañ ko positif ñi nga xam ne ñoom la doon saafantool si événement réseau boobu lan la ñan la ak euh, lan moo leen daal surtout xam nañ ne feebar bi tant que manifesté wul pour na nga diagnostiqué ko ba ba ba xam ne kii am na virus bi du yomb kon na defe na il faut ñaan yi baax na nañ koy jëfandikoo euh, mais aussi siñ comportement nañ ko changé dañ ko changé éviter euh, maanaam rassemblement yu bëri yi parce que ñun dañoo nekk dëkk bu néew doole boo xam ne virus boobu xajul suñu man Adja Sémou Sarr laa tudd. maman gis nañ Sénégal amoon na jéego mag bu ñu def ba faj kenn koo xamante amoon a jàngoro bi. Mhm. waaye dem ñu déggaat euh, duggaat na Sénégal ci benn moon boobu ñoon fii jóge Italie ñoon ci màggal Poroxaan bi. Mhm. tey ñu déggaat jabaram bi amaan na feebar bi est que tey lool kereewul tiitaange ci Sénégal. ah waaw dina créé tiitaange mais tiitaange sant yàlla rek ndax boo. yàlla mi ko dugal yàlla mën na ko saafara mais nag si kaw lool rek ñuy def suñu ay fàggandiku di di sàkk di def cet gi ñuy wax ak di ñaan si yàlla rek parce que bu fi duggee tamit bon munoo si dara bu nekkam jot naa dugg ba pare li ñuy ñaan mooy yàlla yemale ko fi def ci saafara si ñi mu ñu mu jotagul yàlla bañ koo yeggale si ñoom mais am na tiitaange dina si am d'une part waaw ndax ay nit rek lañu. waaw waaw maa ngi nuyu Sénégal yëpp rawatina ak sunu mbokk yëpp yi ci àdduna ki ci bitim réew ak Moussa Ndour. waaw Moussa ñi ngi gis nañ ni Sénégal amoon nañu euh, jéego bu mag bu ñu def ngir euh, coronavirus bi amoon nañ sax benn patient bu ñu faj waaye ñu ki démb gis nañ am na keneen ku jógee Italie ñëwoon ci màggal Poroxaan indi joomu jàngoro bi tey ñu yëgaat si xibaar ne jabaram bu aussi am na coronavirus bi loolu baa kereewul tiitaange ci Sénégal. tiitaange du Sénégal rek àdduna bi yëpp la créé tiitaange ndax lépp lay laal parce que àdduna bi yëpp day tëju économie bi day tëju commerce bi tëju lépp tëju même dund bi ak lépp ndax kenn amul lu la doy te Chine daanaka moo nekkoon capitalu monde bi kon lépp daanaka fii mu ne dafa taxaw kaa yi fi nekk nag dañ noon ñetti cas la ba yàgg ñu ne ñeenti cas nee nañu faj nañu ñaar yi beneen dolli si li ma ci sama xalaat mooy aéroport la ñu fa teg ñee ñu fa teg ñoo motul la doon waaw parce que bu fekkoon ne normalement ak jumtuwaay yi ñu wax ne moom la ñu jël ba ba teg ko fa affaire yi warul mën a jàll ba dem tuuba waa ji mën a am foofu lu mat sept jours affaire bi ñu soog koy trouvé yaakaar naa loolu contrôle bi moo des waaw état bi mën na def li ko war mais ñam fay teg agent yi seen taxawaay ñu moodul moodul doy te ñu doyadil seen bopp daal maanaam ku ciy jàng ak di wut ak lépp di nga def positif mais boo demee ba yàlla dogal tey nga commencé liggéey ba am 2 mois trois mois commencé ay tappale koo ci ne xëyal 8 heures 10 heures lay xëy 14 heures nga 13 heures nga war a 14 heures nga war a wàcc 13 heures ngay wàcc loolu moo gën a tax yëf yi gën a laaw. Euh, Amadou Gueye la. Amadou Gueye jàppoon nañu Sénégal euh, ñu ngi vaincre le coronavirus parce que am na patient zéro bu ñuy faj. Malheureusement, à notre plus grande surprise, hier, on a vu qu'il y a un autre cas de traité à Touba, plus précisément d'un monument qui nous vient d'Italie. Aujourd'hui, le matin aussi, nous avons Diabaram aussi contraint le virus. Est-ce que tu as créé une inquiétude au Sénégal Bon, je vous dire, on a créé une inquiétude parce qu'on avait, on est tous, on est tous persuadés que le coronavirus, bon, elle a découvert quoi d'une part parce que nous avons euh, genre, il y a Touba, nous avons fait un monde. et puis on est rendu compte que ne léegi am na Sénégalais boo xam ne risque contracté na ko bien vrai que c' pas c' pas facile que ñu ñu je pense que ne l'abscose bi day gën yokk ci loolu. day parce que puisqu'on a dit que celui qui est contracté le virus le virus il était bien conscient qu'il a le coronavirus mais il s'est cassé il s'est cassé jusqu'à ce que sa femme euh, se contamine de ce fait bon <clears throat> bon c'est pas facile d'éradiquer ça parce que c'est un virus et qui peut, qui peut, qui peut, d'une manière <clears throat> vraiment dégoûtante. ñu bëri ñu ngi naan autorité sénégalaise aéroport yi est-ce que am na amul tuuti négligence parce que depuis bu ñu déggee coronavirus waroon nañ mën a lool parce que kooku dafa jóge Italie ñëw dugg Sénégal lu tax mu indaal virus bi. oui puisqu'on a dit que le virus pour que pour que pour que pour que le virus le virus se manifeste au moins qu'il y quatorze jours ou bien deux semaines. Oh, donc tu bon il mën na koo am avant loolu noonu mais peut-être si ça ne se manifestait pas raison pour laquelle que peut-être euh, les les le ont fait tout ça mais ils n'ont pas eu par exemple euh, dire le virus ne se manifeste pas ne se n'est pas ne s'est encore manifesté. Okay. c'est pourquoi peut-être d'après ce que je pense puisque le le mooy le blanc qui levait au premier cas. voilà avan avan avant avant avant comment dire avant mu yéeg ci aéroport bi avant muy mu yéeg avion. On a détecté, mais on n'a rien trouvé. Et le, et le, lendemain, on, a, on, a, on s'est rendu compte qu'il qu a le, Donc, la période d'incubation bon, D'après ce que les, les, que j'ai suivis sur la télé, plus particulièrement sur l'émission que j'ai euh, écouté <coughs> le médecin qui est chargé des, des aéroports et tout ça, mais d'après ce qu'il a expliqué, il a dit que, ils ont les, tous les dispositifs nécessaires pour pour pour détecter, pour détecter les virus et les aéroports aussi ils ont bon ils n'ont pas ils ont les équipements ils n'ont ils n'ont pas manqué de ce fait bon mais c'est le virus qui est un peu euh, comment dire c'est pas c'est un peu sensible qui et difficile à détecter un peu et c'est pour ça mais je pense que les aéroports bon ont tous les ont tout, ils ont ils ont pris le dispositif et, et ils ont les tous les euh, matériels nécessaires pour détecter le virus mais peut-être comme je viens de dire On peut pas, on peut pas, ouais, c'est un cas exceptionnel. On peut pas détecter Il faut qu'il y un temps pour que ça se manifeste, pour que nous sachions lol non. Événement religieux wax dañ ko wara arrêter ba ñu xam fièvre fi mu jëm. Est-ce que tay lol warul nek ben lo xamanté dañ ko war a appliquer fi Sénégal. Bala nga nañ naam nekk fa ndax diine ci boppam li nga xam ne ñun dañu li ci ëpp mooy ñun jullit yi waaw événement yi ci bopp ñun la te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi peste amee da ne képp ku mu dal na nga toog fa nga nekk bu fa kenn dem bu ñooñu ñëw bu ñu dem foofu kon événement yi ah comme ñoom parce que événement yi quatre vingt pour cent yi ay commercial la waaw yàlla taxul commerciale la kon mën nañu ko arrêté parce que feebar bi moom pour mu yokk dal ci benn nit rek boo wootee événement benn nit bu ca loroo rek bàkkaar boobu kenn mënu la ko te fekk lu baax nga ciy wut ah loraa nga la ciy jurati booba. ah man si sama avis bu dee man moom euh, événement yi jarulu jarul jarul jarul kii jarul dindi comme que se déjà programmé yàlla mi programme événement bi programme feebar bi xam na num koy defee solution li si nes nag mooy ne nit jaam day sa day day ñaan di feggu def ci cet gi ñaan si yàlla li ñuy ñaan saraxe li ñuy saraxe li si des yëpp ñu teg ko si loxo yàlla man daal loolu laa gisee.